dëkk yi ana waa kër Serigne Babacar yi ci loxo ci moom waaye taalibe Cheikh yi fu ñu toogee taalibe Cheikh yi fu ñu toogee Thierno Sall Sall Thierno Sall Thierno Sall Thierno Sall Thierno Sall Thierno Sall ana alquran yi balaa ñuy commencé rek ay sénégalais la ñu mënta ñàkk euh, bongo laal man nag maa ngi nuyu ñëpp yéen ñëpp seen tur ak seen sant képp ku fi mënti ñëw ñu Ohio ci euh, ci Ohio yëpp aux alentours euh, man nag maa ngi tudd euh, Mohamed Diallo ñu ngi may woowee Mo kon ci loolu kon na lamp na lamp yi te ngelaw mën dafa yaay lamp bu dëgg te ku ko nar a weddi da laaj laaj ñu yore sondeel yi lu dëgg euh, dafa important woon pour man euh, ma dugg ci état yi gisanteeg Sénégalais yi waxtaan ak yéen ñu weccoo xalaat ma dégg seen bébét li ma ci mën a faj ma faj ko you know euh, maa ngi gis ci salle bi gis suñu maman ñu ngi fi waaye maman bu soxla woon tuuru léppay baax baax sëñ baax mu mën lépp léppay baax. maa ngi gën nag am na ay jeunes yu nekk ci ginnaaw balaa maa commencé si yéen damay commencé si jeunes yi ba pare pour ñu nekk parce que salle bi fees na maa ngi gis ay jeunes yéen a ngi ci ginnaaw donc foog ma wax ak yéen ah, parce que ëllëg suñu réew jeunesse si ñoo koy yore. Euh, man nag naa leen expliquer jeunes yi ni ma amee xaalis naa leen expliquer tamit naka laa koy lekkee c'est important bi may njëkk ñëw États-Unis sama premier liggéey dama doon def housekeeping yes dama doon defar ay lal loolu laa doon defar nit ñi hôtel yi utiliser hôtel yi génn ma defar lal yi loolu moo nekkoon sama premier liggéey sama deuxième liggéey maa ngi ko def nekk bus ci restaurant dama doon daw kon tey jii nii li lu muy signifier mooy yàlla mën na lu ne te àdduna dafa gudd tànk lii nag naka laa yegsee fii yéen jeunes yi bëgg sama yaay te sama pap sama xarit fekkee da ngeen bëgg tester seen ñaanu waajur da ngeen di engager li ngeen àttanul loolu ngeen koy tester gëm seen bopp lépp loo yóotu jot ko soo leen ko jotul ngeen xam ni que seen wërsëg nekku ci ngeen xool leneen bu leen tiit bu leen ragal jeunes yi laay waxal ci loolu euh, benn affaire tamit dafa kon ma leen ko waxee def nañu Washington euh, def nañu. Euh, def nañu Chicago. dafa important pour man ma def lii parce que dama gis ñu nekk biir États-Unis nekk Sénégalais il fallait que ñu booloo waat xol yi très important fallait que ñu booloo waat xol yi. moo tax ma jël sama avion sol ci sama essence indi njole depuis Sénégal ba fii indi ñaar depuis Sénégal ba fii jël suñu jet privé dugg si dëkk bu nekk ñëw gisante ak ñoom c'était important pour moi loolu ay pexe dañuy euh, Sénégal am na ay maçon. États-Unis am na ay maçon Sénégal am na ay restaurant États-Unis am na ay restaurant Sénégal am na ay ingénieur États-Unis am na ay ingénieur donc lu am États-Unis am na Sénégal mais lu tax dëkk bi gën ñu avancé xool ñi ëppale mu ñu dara suñu boole waatee xol yi rek lépp dem te nit nag oto rek la na xel bi mooy tableau de bord bi waaye essence bi mooy kër gi foog nga def ci essence bu baax pour mën a dem très important yéen nag suñu yaay yi nekk euh, nekk États-Unis xam naa ne que métti na xam jur doom dara kaa yar biir États-Unis ci biir loolu ngay liggéey daw dàkke nine to five nara am baby sitter I understand loolu comprendre naa ko you know mais euh, di dalal seen xel incha allah bépp association bu ñu sélectionné tey dina am lu leen moo gis defaral tey parce que parce que waa na sedd suuf si doomu taal ah. Ah. des damay dégg ñuy wax ni que ah, am na ay milliardaires yu bëri yoo xamante ni que kenn du leen dégg Euh, c'est vrai kenn du leen dégg euh, daanaka milliardaires yooyu yëpp quatre-vingt-dix pour cent yëpp ñoo ma mag man xale laa damay liggéey ñoom kenn du leen léegi waaye yéen di ngeen ma dégg di ngeen encaissé di ngeen rato di ngeen bale di ngeen encaissé loolu maa ngi euh, remercier ñëpp ñëpp ñu ñëw fii maa ngi leen remercier yow maa ngi remercier sama équipe sama biir équipe amul chinois amul tubaab ay sénégalais la xëy na moo gis mooy nekk ci kanam waaye aji ngi fi liisa ngi fi faatu ngi fi awa balla ngi fi xaarim scanner mi ngi ci ginnaaw mooy scanner lépp sama doomu ne xaarim jox ba mi ngi ne taxaw <laughs> di nuyu xaarim ligit di nuyu bàcc gumba la Sankara bi ngay jóge Ohio sàngal bi ngeen jógee Ohio tey sama ñaar suul leen si doomu taal war ko mën sàngal bi ngeen jógee Ohio da nga jël sa oto dawal jël sa avion gëm sa bopp di liggéey yow des pro siin xule tey nga ñëwaat sa dëkk jet privé fi wàccee tàccu leen Sankara waaye nag dafa am koo xamante ne maanaam sama nit la showbiz à part way à sama nit la tàccu leen ñoo taal comme comme ma leen waxee di remercier ñëpp you know euh, sama team moom franchement di leen remercier moo gis moo nekk ci kanam wala di leen remercier you know waaye ñaan ak kenn du ñaan mooy snap nu leen mooy gis lu ne waaye xol bi dara ñëw ku baax la ku baax la donc ni ñuy def mooy fii mooy euh, parti bi nga xamante ne euh, damay remercier ñi nekk Ohio Camara kenn yow Camara kenn yow waaw ah, Camara kenn yow kon di continuer ci remerciement bi rek waaw di remercier di continuer ci di remercier encore euh, Fama Digue ñëpp di remercier franchement. waaw Kelle Diallo waaw. Fama Seck Fara Jëgg Diawara mu doon ñàkk sama mbokk la mu doon ñàkk. bu dëgg euh, donc euh, lépp rafet na fii nag bi mooy partie bi yoo xamante ne damay noppi jox micro bi Sankara pour ngeen mën a encaisser nest ma ne.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 Dakar, notre plateforme d'information.